salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñuy topp ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziar di leen nuyoo nag fii ci cees fii ci Pencum dina faal fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall Baye dina xam nga ne tey jii ci guddi àjjuma ji eh, ñuy waajal gàmm nag incha allah di ñaan yàlla yegg ci jàmm Eh, di xaar nag di xaar ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina mooy sëriñ Amdi Fall moom sëñ Mourou Fall Mbenda di ñaan sunu borom mu doole ko fa yàggal bu baax a baax te may ko ak wér waxtu wi nga xam ne eh, defe naa eh, waxtu wi sori na fii may waxee vingt 22h 23h moins quart ñi ngi ne fii ci pencu Madina Fall di xaar xalifa général de Baye Fall tey euh, muy gàmmoom gu njëkk fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina euh, muy Medina Fall kër gi nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko sancaloon boppam 1904 euh, la fa taxu woon wax nañ ne jógee Ndande ba 1915 jàpp 1916 la fi bàyyi ko dem Njaaréem mboolem nag euh, ku fi mas a nekkal Cheikh Ibra Fall Cheikh saa Moussa Fall gannaaw bu mu wutoo Cheikh Ibra Fall fii la daa gàmmoo bi mu fi jógee it Serigne Mortala Fall sax moo tuddee fii kër gi Medina Fall moo Serigne Mortala ko tuddee Medina Eh, ba sëñ Abdou Sakkoor mi nga xam fi la gane jamono moom eh, itam eh, am ni Modou Mbenda wutu fi maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina xam nga ne 2021 muy gàmm gu njëkk gi nga xamante ne bii fii la fas yéene gàmmoo Thiès njaboot gi ñu ngi tàbbi ngir di ko tertu ko séntu sëriñ Cheikh Ngounda Fall dugg si na léegi moom itam dëkk fii ci penc mi sëriñ Mbacke Fall président moom sëñ Mourou Moustapha Fall moom itam tàbbi si na léegi di tertu xaar sëriñ serigne bi euh, serigne Cheikh Fall mom serigne Abdourahim Fall mom Cheikh Modou Moussa Fall mom tam tàbbisi na léegi njabootu Cheikh Babacar Lo serigne Amdi Lo moy xalifa bi mom tam gis nañ ko fi léegi ñom ñep ñuy gàttandu serigne bi way njabotou serigne bi njabotou bopam gëna jitu ci si takusan tàkkusaan ko ñu mel serigne sëriñ Cheikh Bayib mom serigne euh Amdi Fall mom mom mom moom sëñ Modou Mbenda tam euh xam ngeen ne mom tam itam tàbbisi di xaar serigne bi mu melne kon serigne bi suretul mi ngi tàbbisi mi ngi jege si euh, su ko défé Baye Fall yaangi ngi ni taxaw euh, gis ngeen xaside yi jolli ci biir manam euh, murid yi di yëkkati xaside yi moy kurel nga xamne ñofi jangudi aljuma gu jot euh, ñoom itam ñi ngi ci biir di yëkkati xaside ngir tetto ko serigne bi waye jaajeufal baax alali maam Cheikh ibrahim Fall nak ay jambar lañ ay ñeyu xare jiite ci baax general Omar sek, euh, serigne Soxna Diagne ci ak murid yi ñu andal yépp xam ngeen ne ñoom la serigne bi santoo ngir ñu yeesal kër gi du ñàkk da ngeen ko gis ci image yi niñ ko niñ ko def niñ ko melal lépp rek ngir ndeysaan waajal serigne bi di ñaan yàlla nag Euh, maanaam euh, santaat bu baax a baax daal di ñaanal sëñam di mu Modou Fall Mbenda mu yàgg fi loolu te euh, mu yàgg wuutu maam Cheikh Ibrahima Fall ci jotaay bi Eh, ci barke borom Touba barke maam Cheikh Ibrahima Fall eh, barke penc mi ci Medina faal eh, tey daal kon mbokki cees am nañ gan incha allah ndax sunu gan gu màgg gu tedd gi nga xamante ni bii jege si na xam naa du ñàkk fii ak waxtu yu ñu gis ko mu tàbbi si fii ci kër gi nga xam ne kër maam Cheikh Ibrahima Fall la Cheikh Ibrahima ko sancaloon boppam moo ko jëndal boppam suuf si titre foncier la boo xam ne Cheikh Ibrahima ko jënd amoon yéene nag dafa liggéeyal ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim ba Serigne Touba woo ko njaareem waaye mboolem ko fa mas a wut rek nga ñëw fii ci kër gi kon daal lii doon fas yéene eh, tey jii ci guddi gi incha allah ci guddi ajuma gi nga xamante ne bii eh, mi ngi eh, tombeek jeudi le 14 14 octobre 2021 ci guddi ajuma gi ñuy xaar xalifa général de Baye Fall sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Fall Mbenda moom moom maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina. عن الميل عن مرضي Amin خير رابر وسيد خليل حبيب مثل ليس يعلم نجي قريب ذاكر وذاكر جواب كريم بالمكارم يسلم نقي تقي سادر وهو مذنب نذير لمن لله بالحق يسلم نبي أديب زور من يليل نجيب حجيب ناسف وهو ناسف هو الآمر النائل بجي خير يدمن نقيب رقيب مستجيب مسلسل مسيء ملاذ وما هم مسلم نسيب عسيب يفاني ويحايي وفوزي بلا حنان بكوني قديما مصطفى تتبين نسيته في السر والجار لي بدل ميقات للرحمن سترا يحسن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن waaw waaw sëñ bi day jàmbaar ngeen lool ngeen sant mi ngeen di ñaanal waaw waaw sëñ Mamour Ndaw waaw sëñ Mamour Ndaw waaw waaw moom si moom ñoo ma àndoon ak liggéey bi ñoo ñoo àndoon liggéey bi boobaa léegi nag waaw waaw waaw waaw waaw waaw ñoom ñii da day am ñoo xam ne dañoo dañoo bàyyi ko woon sowu ñëwoon ñëwoon ànd ak ànd ak sëñ bi liggéey bi ànd ak ñoom sëñ Omar ñu liggéey bi da mel ni nag dañoo dañoo bëggoon a yeewu ko si fajar gi ngir mën a dellu nag waa ji ngir mën a dellu si waat nag si si si si liggéey bi waaw waaw waaye waaye ñoom daal ñoom daal Fall liggéey nañ ci liggéey boobu solo boo xamante ni bii moom yow rek lañ ko liggéeyal ndax yaay Cheikh Ibra te ñoom ñooy alali Cheikh Ibrahima Fall waaw kon nag ñoom liggéeyal nañ ci ki leen moom waaw waaw liggéey Baye Fall nag bu liggéeyalee ab sëriñam ah ba ba ba ba liggéey ba àgg sañ naa toog nag si kanamam ah santaat sëriñ bi nag ñaanal ko nag sàkkuwaat si moom it ñaan nag waaw ñoom ñii daal nañ am doole nañ am kàttan nañ am ay xéewal yu ne gàññi ndax ñoom yow rek la ñuy déglu Fall. ñoom ñooy alali maam Cheikh Ray Fall te yaay Cheikh Ibra. kon yaa moom seen jëmm yi yaa moom lu si aju. waaw yow rek la ñu bëgg a te yow lañ fas yéenee liggéeyal. waaw liggéey bi fii wax dëgg yàlla am na solo lool. waaw ba ñu ba nga leen fi yabalee ak léegi. ñi ngi taxawu liggéey bi. waaw def nañ ci lu lu lu lu yéeme lu kii maa loo xam ne ñoom sëñ Gunda ñoom ñëpp mat nañ ci seere. waaw kon nag neen sëñ bi ñaanal bu baax a baax. waaw nañ nañ ko nañ jékko liggéey bi bu baax rek waaw nañ jékko liggéey bu baax rek te suñu borom kattan na nga na leen dana amit woon amit sëriñ bi nee na xolam sedd na si yéen waaw waaw bismillah da nga am kàddu yoo bëgg a joxe waaw bismillah sëñ Omar sëñ Omar daal dafa waxoon ne waaw danaa bu ko sëñ bi santee liggéey bi waaw mu ñëw fanaan si bi bis mm-hmm. bi boobaak léegi delluwaatul moom njaboot gi mm-hmm. ñoom ñëpp ci kuréel gi lañ bokk mm-hmm. def nañ ci man ak lu mënu Euh, ñu ngi lay sant bu baax na ci ndigal li mm-hmm. tey ñaan yàlla nga yàgg fi loolu te wér mm-hmm. wax na nag maanaam liy des ci ñoom ngir ñu gàmmoo fi mm-hmm. ci yow lay bàyyi ko su fekkee ne dañuy am ndigal toog su fekkente ne bi dañuy yeewee ñu mën a dellu moom daal loolu la waxoon ne moom mi ngi say loxo ak mbooloo bi boo ko sëñ bi sant rek gannaaw daal dañ ko sëñ bi doon yeesal moom mooy dara yeesal nañ ko ma doon ko ba sëñ bi yees ba gis ko li ci des nag nee na sëriñ bi moom lu mu ko sant rek su fekkee ne day day day toog daal moom sëñ bi mu toog ak mbooloo bu fekkee dene bii daa am beneen ndigal yi mu dellu te digal digal loola rek loolu daal lay sàkk waaw alhamdulilah sëriñ bi nee na li mu leen santoon xolam si. waaw. mën a dem dellu si. mën dellu si dellu si waaw waaw tàllal leen loxo dem dellu si gàmmoog moom daa bëgg ngeen gàmmoog moom barke maam Cheikh Rafa amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin barke woon si yàlla. waaw ndax war a jëm ci waañ wi ndax laaj nañ ndax ñu am nañ ci ndigal. waaw am nañ si ndigal sëñ bi waxoon na ko ko. waaw taxawaay bañ daa am si waañ bi ñoom ñii dañ daa topp ay ñam. waaw si si bis bi. taxawaay boobu loolu yaakaar naa sëriñ bi joxoon na leen si ndigal keroog. waaw moom moom taxawaay boobee moom bu si dara nekk ginnaaw nag ñu lay jox ko jëm kanam waaye bu si dara nekk ginnaaw waaw. <laughs> ما الواحد القهار هني